Euh, alaikum wa rahmatulah alaikum chers téléspectateurs alaikum le monde de la lutte De nous les promoteurs lutteurs en les anciens lutteurs de nous les amateurs de la diaspora de nous le monde de la lutte du ziar bu baax ak lu làmb yëpp ñu euh, parce que ci mom la vol vol 13 bi euh, ci émission fàttaliku Mbaye Gueye ñu soufou. ñaanal ndakaaru sedd oyof ci baha bu a baax a na ko te xaruk ko yu a vidéo bi képp ko rek nga défal onze l'ikhlas fukki l'ikhlas ak Ben. ndax yalla ko ko bu ñu ñëw émission 13 e numéro euh, concernant un peu du parcours de Mbaye euh, l'ancien Tigre de face, le premier Tigre de face. Mbaye est né le 15 janvier 1945 à Fas. 1945 la Mbaye fait que le 15 janvier ki ko dit arabe arab so maître coranique Oussas, Alioune Ndiaye la tuddoon muy Mbaye Gueye à Fas, toujours Mbaye a fait une armée en 1966 euh, libéré il a fait 18 mois maanaam deux mois il manqué 4 euh, ans manqué 4 mois Il a fait 18 mois qu'il a libéré l'armée. Euh, bi mu libère armée nag ci la dugg ci lamb une fois pour tout pour de bon parce que avant mu dugg armée <coughs> daw na beure mais bi muy tey bëre bi bu baax a baax a baax dëggantaan nga xam ne booletu loo ko booletu ko woon kenn mooy jamono bi mu armée d'après en 1968 bim mu 18 ans ci armée bi donc premier combat Mbaye gay c'était contre Samba Thiaré en 1965 d'après suñu euh, gestu 1965 la Mbaye Gueye ak Samba Thiaré son premier combat avant mu dem armée deuxième combat bi Mbaye Gueye contre Moussa Mbarodi Moussa Mbarodi Cheikh Seck euh, contre Moussa Mbarodi et Cheikh Seck durant la même année dafa a ak Moussa Mbarodi ba pare bëriwaat ak Cheikh Seck ci benn année bi donc euh, Mbaye Gueye combat bi nga combat bu mag bi mu njëkk grand combat bi mu grand, contre Robert Diouf Robert Diouf c'était en 1969 contre Robert Diouf en 1969 au stade Ibamar job de Dakar donc le 14 juillet 1968 ci la tuuru Tigre de face judo. 1900 1968 ci la tuuru Tigre de Fass juddu kan moo ko ko tuddee woon benn journaliste bu mag bu ñuy wax Yamar Yamar Diop. moo tout tuddee parce que exploit bi mu doon def Yamar Diop mu ngi nekkoon ci journal bi ñuy journal Le Soleil waaw journal Le Soleil ci la Mbaye Guèye nekk ci la Yamar nekkoon moo njëkk a Mbaye Guèye Tigre de Faut voir la Tigre de face, jógee ci Yamar. Euh, ci combat bo xamné combat bu metti bu tanga donc euh, combat bobu contre Sanjambour. le 14 juillet 1968 aux arènes Makhari contre Sanjambour, le 14 juillet 1968 ci la Yamar tudon euh, Tigre de face aux arènes Makhari Cham. donc bo xolone Dakar barone ay arènes mais Ben arène actuellement kese moo modeste au niveau de Dakar muy l'arène Adrien Senghor à part arène nationale bi nga xamante ne tout récemment la soog a am euh, benn arène moo moo nekk léegi muy arène euh, arène Adrien Senghor arène Mahari Thiam amoon na arène Dalmas amoon na arène euh, tuuti arène bëri woon na mais benn kese kese kese kott moo ci des léegi muy arène Adrien Senghor loolu nag chance la chance la xaw ma mérite la mais xaw ma mérite la xaw ma chance la daal mais en tout cas chance laa ko mën Euh, combat bi nga a mu contre Souleymane Diaw 1972 la contre Souleymane Diaw au arènes Robert Dalmas the arène Robert Dalmas la en 1912, combat bi nga a ci ay euh, en 1977 aussi saqi contre Doubales arbitre bi doon arbitre combat bi Babacar moy premier bi mu contre Doubales euh, loolu xam na waruñ coo sax euh, on est obligé parce que euh, ci palmarès bi la bokone combat bi nga xamante mo moo gënoon a ci ay combaam contre Samba Diawlo won en 1963 combat bobu motuloon sax 8 secondes d'après écho yi 8 am 8 secondes ou bien moins son plus beau combat c'était contre Moussa Diamé combat bi nga xamante mo gëna rafet ci ay combat contre Moussa Diamé en 1976 en 1976 donc combat boobu noonu daa fekkoon mu jógee ci défaite contre Doubalès waaw bi daa fekkoon mu jógee ci défaite contre Double en 1974 donc contre Moussa Diame en 1976 ñu ngi ko fayoon 1 million 700 donc quand vous xoolee am na ñoo xamante million euh, kan moo ko indi ci làmb Tyson mais Mbaye Gueye moo jëkk million su ma juumul parce que jamono boobu 1 million 700 boobu xaalis la woon en 1976 1 million 700 non franchement boobu mu ngi mel ne comme ay 100 millions ci jamono parce que jamono boobu xaalis bi am na njëriñ am na valeur té bobu un million francs, beaucoup. nga ci def lu bari bari bari bari combat contre Moussa Diame jamono bobu Moussa ngi 132 kilos presque en général buñ doon mot 100 kilos aussi ay 95 lañ doon de 100 kilos façon lourd presque nañ donc on catégoriser lamb donc on lamb ndax war am catégorie warul am catégorie mom xawna day war mais en tout cas dal lamb frappe ak lamb simple mom catégorisation mom liñ ko xam ci moy lutte simple lutte africaine wala lutte gréco-romaine foofu lañ xamé catégorie mais bu dee lutte simple pure et dure bi nga xamante c'est pure typiquement sénégalais non franchement catégorisation catégorie mom mësu ci am mom non non mësu ci am donc euh, bo xolé aussi dernier combat bi nga xamante ne Mbaye Guèye mu ko mujjé bëri c'est en 1987 contre Mohamed Ali Mohamed Ali bu nek écrit Waalo mom la Mbaye Gueye mujjee bëri en 1987 combat bobu sax yakana naa ne da koo ñàkkoon contre Mohamed Ali combat bobu la Mbaye Gueye mujjee bëri loolu lañ jot ci carrière u Mbaye mais man lima xawna jaxal ci Mbaye Gueye rek moy franchement euh 95 kilos yi nga xamantene mom la doon posé di bëri ay kilos té bo xolone 132 kilos ñu ci bëri jaaxaluñu ko won ñu ci bëri amna na ñàkk ñu ko doon daan mais ñu ci bëri jaaxaluñu ko wa 95 kilos motax mbeur yi nga xamantene ne ñoo bëri poids léger actuellement

ni abonné ni abonné ba pare aussi ñu wax un grand merci à vous di leen fat bu baax de len laal nak cloche de notification bi parce que cloche de notification bi bu ngeen abonné par su ngeen ko laalee lolou mo leen di permettre ba nga xamante vidéo bu mbéné lan timi njëkk a dugal da ngeen bok ci ñi nga xamante ñoo ko njëkk a visionné waaw di leen jox di daje ba ci benen numéro